Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3 énergie ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf li xew ca Bakel ak Matam moom la yéene kaay yu bëri xëyee tey réew mi quotidien bokk na ca mi wax ci tukki bi nga xamante ne njiitu réew mi dina ko amal ca diwaan yooye nga xamante ne laru nañu lool ci ndoxu géej bi wala ngan ba nangu dëkkuwaay yi yéene kaay bi nekkoon moom ba Bassirou Diomaye Faye ñu ngi ko fay xaar ak càkkuteef yu bëri yi nga xamante ne kon moo tukkee ci inondation yooyu le Sud Quotidien yóbbu ñu tamit ca inondation yi nga xamante ne kon fleuve Sénégal bi moo ko waral yéenekaay bi duppee ko ab jëye ndax ñetti doomu aadama nee ñu mujj nañ cee ñàkk seen bakkan gannaaw kër gi nga xamante ne kon ban la mi daal di màbb seen kaw armée tamit jël na ci matukaay soldat si tàmbale nañu jëlee askan wi nga xamante ne ñoo dëkkee cogoreel Samba Ndamma ak fi nga xamante ne mooy Mboyo njiitu réew mi ba Bassirou Diomaye Faye ñu ngi ko fay xaarandi ngir wàllu ji ñi nga xamante ñoom ñooy askan wi askan wi ca bët gannaaru réew mi ñu nekk di dund lu metti bu ñu sukkandikoo ci l'observateur yéeni yéenekaay bi di xam ne ni kon bëri na ay village yi nga xamante ne bokkatuñu ci kart gi ay tool yi nga xamante ne bayoon nañ ko ba noppi jamono ji ndox mi nangu na ko yéenekaay bi daf ci tamit ab bilan bu njëkk ni kon ñetti doomu aadama di ay gone ñoom ñoo ca ñàkk seen bakkan am tamit lu toll ci fukk yu ci jëlee ay gaañu-gaañu ci kër bi nga xamante ne moo màbb seen kaw ni ki démb lii moo tax Walf Quotidien gis ni kon jamono ji ca diwaanub Matam ak Bakel goge mu ngi mel ni lu ñuy wax lu golo xam bootee doomam ndax moom ci jamono ji nga xamante ne OMVS activé na li ñu duppe vigilance rouge ca diwaan yooye nga xamante ne ñoo ca loru ci dande mayo bi sax source a mu ñuy xamal ni lu toll ci ñaar téeméeri junni doomu aadama jamono ji ñoom ñoo xamatul fa ñuy teg seen tànk conséquence yi nag foo ko nat weesu na ko moo tax le quotidien gis ni état ci boppam jamono ji moom moo tëmb tamit ci ndox mi gannaaw alerte précoce bi nga xamante ne OMVS daan na koy fasal yéene kaa di xam ne ni kon am na ci benn gone bu toll ci juróom-ñaari at bi lab ñàkk bakkanam ca Kidira inondation yi am ca Kidira ak ca diwaanub Matam tax na ba ñu tàmbalee am jeexi jaaxa ci li nga xamante ne moom mooy élection législative yi ñu dëgmal waaye bis bi la jour mu ngi ñuy xamal ni ak lum ci mënti doon tooxal yile élection moom kenn xalaatu ko bokk na ci li ko waral jafe-jafe yi nga xamante ne loolee mën na koo indil nguur gi rawatina ci wàllu vote budget bi ba ci sax retard li nga xamante ne moom la ñu am ni mbëbët muy projet ngir doxal réew mi bu fekkante ne élection amul laata élection yi di ñëw ñu nekk ci jamonoy pré campagne yéenekaay moom gis na ci ay hors la li ko waral yéenekaay bi lim na ci way politique yi taskatu xibaar yi ba ci sax autorité administrative yi nga xamante ne ñoom ñëpp dañuy salfaañe li nga xamante ne moom la loi bi wax ndax ñoom ñëpp ñu ngay def wàllu politique presse bi tamit di ko couvrir di ci addu te loolu yëpp loi bi ci boppam daf koy tere mbir mi nag ñu ngi ciy xaar seeneexa waaye njiit lu yees li di Mamadou Oumar Ndiaye moom dialogue la sàkku dialogue moom amul diggante Amadou Ba ak Sonko tête de liste jàmm ak njëriñ moom tàmbale naa defante ak ki nga xamante ne moom mooy premier ministre Ousmane Sonko kàdduwam ci yéene kaay bi muy xamle ni kon moom dafa nekkoon rek ci congé waaye léegi delluwaat na ci langue politique gi tàmbale joxe ay coup jëmale ko ci nguur gi Walf Quotidien ne ko coup bu njëkk bi kay mooy li mu wax Ousmane Sonko ak Jomaay nekkoon ki jiite nguur daal warul woy ci ay joyanti ndax am na lu koy xaar li Amadou Ba wax moo tax les échos gis ni ab leçon la jox ki nga xamante feelu ne lii kay weesu na leçon ndax amadu Ba ci boppam dafa chargé régime bu yees gi amadu Ba di chargé Idrissa Seck ne cell L'As Quotidien jaaxle sax ci tekk tekkaaral gi nga xamante ne ndaamal Kajoor am na ko moo ne day ñu ngi jëm ci élection législative le témoin gën ci xuus ne ko mbir mi yamul rek ci Idrissa Seck ndax Moustapha xalifa Khalifa Sall Aminata ngi Ndiaye ak ñeneen ñoom ñëpp jamono ji dafa mel ni ñu ngi ci guddi gu bër setegul kenn déggu leen ci coowal waaye nguur gi sëgg na ci référentiel bu yees bi nga xamante ne moom la daal di fësal Le Soleil yéenekaay dénk ci kàddu jëwriñ ji ñu dénk wàllub koom plan ak coopération Abdourahmane saar di wax ci li nga xamante ne moo ci war a soppeeku ne kon la ak li nga xamante ne moom lañ fi amoon jëwriñ ji ne coppite gi moom fii ak muy def ñaar fukki at ñëpp dinañ ci teg seen gët te ñu fas yéene sukkandiku ci li nga xamante ne moom la Sénégal am ni meññeef waaye tamit lépp li nga xamante ne am nañ ko fi ni ay borom xam-xam lépp tegu ci yoon wàllub yoon ci la libération xëy tey di wax ci xeex bi nga xamante ne moo jib diggante Excaf ak TDS SA li waral nag coow li bokk na ci exploitation ñaari multiplex ak décryptage bi nga xamante ne dañu ko jëlee ci loxol Excaf mu mel ni group bi ci boppam ñàkk na pàcc bu njëkk bi ci xeex bi ci wàllub yoon ki ñu njort ni moo faat soxna si doon jaay boppam ci diwaanum Ngor réew mi quotidien mu ngi xamal ni jamono ji mu ngi ci loxol yoon ndax démb mujj nañ ko teg loxo ca diwaanub Saly réew mi nga xamante ne mooy Ludovic site artiste bi dikkaat na ci li nga xamante ne moo ko wutale ak yeneen yi naka la fas yéene doxalee tamit aaram gis-gis bi mu ci am tolluwaay li tamit ci réewub Sénégal ci réewub Arabie Saoudite record dikk ci jongante bi nga xamante ne mooy xaar Sadio Mané niki tey ji digganteem ak Al moom attaquant sunu gaynde yi ñu ngi koy xaar dëgg mu wëyal forme bi nga xamante ne moom la wane rawatina ci jongante Sénégal yi mujj jàngeen jëf Sénélec société